am na ko muy waxal cey liiru jaan ma nga noonu di ñëw Ibrahima xoolal doxu liiru jaan bi xool ko ma ngay arrière cey ma ngay étiré mu ngay ñëw monument wu géejawaay bi <laughs> cey ndeysaan mu ngi noonu ma ngay arrière ndeysaan cey liiru jaan palmarès sam nag li ma ci xam bariwut ndax ñaari defetam laa xam ak benn victoire am wax dëgg Xaadim Njaay daan na ko stade Jom stade Demba Diop wulli daan na ko déedéet daanu ko wulli daanu moo daan wulli kon xam naa ñaari victoire am ñaari defetam ah ak Van Daam daan na wulli daan na Van Xaadim Njaay daan ko ak kan ak kan yaakaar naa ni xaadim xaadim Njaay ak Gajaga ñaari xaadim yi xaadim Gajaga daan na ko xaadim Njaay daan sa palmarès laay wax liiru jaan ñi daan ma ni ma ni man sa ñaari victoire laa xam ak sa ñaari défaite daan nga xaadim xaadim Njaay daan na la. xaadim Gajaga daan na la. yaa daan wuli Gambi daan daan Daam. ah daan na surum la ak sur ak ah, wuli da koo dóor ci ginnaaw saako yi bu bàyyi bu sedd yàlla ko yàlla yërëm surum la ah génn àdduna. surum la surum surub surum la kay surum génn àdduna. Ah, na ko yàlla yërëm waay. yàlla na ko yàlla ko xare ko àjjana. xam man marché bu bees laa dëkkoon moo tax ma xam ko. Ah. doon jaay garabu garabu. sunum le nekkoon na mbër mu neex mbër mu saf xorom sunum le gis nga bu yendoo garab gi balaa muy dellu si waat garab gi jeex ndax saf xoromam waaw ah, nag ñu koy ñaan yàlla yërëm ko jégal ko xari ko àjjana si daraja Seydina Muhammad ñi fi nekk nag yàlla dafa leen tawfeex ba ma koy fekke rek jërëjëf grand Yatma mbokk yi gis ngeen ma ngay wàcc liiru jaan gis ngeen dégg na may wax mu ne ma jili nga ne laan yow ma ne ko sa palmarès rek laay wax ndeysaan ma ngay arrière de yi nag xale yi ko mën léegi bariwut jëlal arrière liiru jaan bi ndeysaan ah liiru fan la jëm mais grand yet ma liiru jaan ay prochain adversaire am ñan nga jàpp ne war nañu mën a bëri. waaw xam nga moom moom ak Xaalim Ndiaye dañoo yabante. mais xam naa ne combat boobu aussi pour ñu leral day jafe parce que ñoom ñaar fu ñu toll nii. dafa bëri coow loo am jooju. Hmm. mais ki ma gis nii muy entraîné di soo. Hmm. di arrière. Hmm. jeexalagul de. non jeexalagul parce que boo gisee ni muy def nii nga xam ne mu ngi ci super forme. ndax vraiment dem na fi États-Unis préparé ji ñëwaat na ba tey mu ngi maintenir état de forme bi mu yor. Hmm, non c'est que euh, gis nga nit. da am hygiène de vie. mag loo nekk mag gis ama seen. waaw ama seen fu ñu toll nii. xale mu jàpp nga am problème. ndax jamono ju ñu nii. sëfal ci xale yi liir tey jii. Hmm. tey gis nga liir mi ngi ñuy xool. pour moom si moom lay wax. <laughs> waaw ci moom. <laughs> bëri ngi moom si moom wax. parce que moom jàpp na ne moom ndeysaan fu ñuy wax rek si moom lay wax. Hmm. mais nag gis nga euh, liiru. Hmm. nekk na mbër moo xamante ni dëgg la dana comédie. mais bu góorgóorlu ànd ak ànd ak ay mbokkam tuuti rek. mën na am dara. mën na am dara. ay nag euh, ak lu mën a xew daal. liiru adversaire yi fi nekk bëri nañ. Mm. bëri nañ trop. Mm. waaw bëri nañ trop. mais mm. euh, bon liiru daal mooy moom mooy xaritu sénégalais yi. waaw bu waxee mu neex. su fekkee mu neex bu bëree mu neex. ndeysaan. ci liiru. liiru jaana ngi noonu le monument. mais pourtant euh, waaw liiru Adama Diouf combat bu neex. ma ah. bu neex a neex. mais li tax jaan bëgg naa Adama Diouf. ah mais bien sûr Adama Diouf. foo mën a bañ moom ndax deful ci làmb lu Adama Diouf deful. moo tax ñoom ñaar combat boobu ku ko tëgg di nga gis comme combat bu neex a neex loolu maa la ko wax. loolu dafa garaaw. dégg ngeen ko mu ngi noonu. liiru jaan waaye lu waaye di ko waxal na nga ko xam. liiru day dóore. day tontu liiru day tontu. te liiru moom liiru liiru Sénégal la ay ca ñu dem liiru top ay ca liiru un deux trois liiru quatre cinq liiru ah lii ban sens la am ci. arrière lay defal maam arrière cuisse yi. Hmm. Baboy danañ jógee Cambérène. Hmm. ba Malika di arrière. te lii nii boo ko def si ay din maanaam bu la mbër àggee fenn fi ba jàpp. Hmm. dana xam ne sama booy am nga am tànk. waaw parce nit. mbër da ngay entraîné man bëgguma am mooy mooy am na mbër bëgguma cité ay non hmm. mais gis naa mbër yu bëri si làmb ji nañu liggéey kaw bàyyi suuf hmm. am na làmb ju rëy yu fi amoon jamono juñ toll nii rek hmm. moo doon mbëru mag bi waaw ba Gaston tëggoon ko kon xam ngeen fu ma jëm loolu kaw gi lañ dafa bàyyi suuf parce que am ñoo xamante ne suñu toll nii seen kaw moo gën a yomb defar seen suuf ndax am na ñoo xamante seen seen yokku tànk yi day dem ba maanaam day dem ba day day jeex mais eh, liiru liiru liiru sénégalais yi liiru. liiru am. liiru liiru. liiru. liiru jaan ñu bare nga wax sa combat yi eh. ak Adama Diouf. dégg moom ba de. li mu la wax noonu xaalis kon ñoos des. dégg na mag buy naan ndox bu taagu suukar saa taa. dégg nga. <laughs> ras bu naan sar sar sar di satatate réer na maa ko xam. <laughs> wallaahi liiru non man liiru dama ko bëgg. wallaahi liiru dama ko bëgg. liiru Arama Diouf. Ah. pour bëgg a tëgg. Ah. tëgg lu rëy. voilà naa ak Bécaye. barki koy bàyyiwul kenn. Bécaye rek day tooñ. <laughs> waaw Bécaye tooñkat la. moom liiru moom kuy tooñ la xam ki ngay la liiru jaan moom moo fi ne.